depuis 2013 ñun am nañ fa ay ouvrage soo déggee ñu wax station Kër be at bassin Daaru Rahman mhm. yooyu yëpp daanaka ONAS moo ko fa defoon si ay jamono ni ñu ko amee Daaru Rahman at Kër Ñang noonu lañ ko amee aussi Ndaamaatu noonu lañ ko amee aussi Guédé noonu lañ ko amee aussi au niveau de Touba Mosquée at ngel at waaw Touba Mosquée actuellement nii euh, jamono ñu toll état du Sénégal dafa initié woon benn projet bu mag boo xam ne li ko tax a jóg mooy jéem a lutter contre les inondations à Touba vraiment zone yi gënoon sensible la muy zone nu Ngiraneen di zone Ngélému et aussi mu ñu renforcer Kër ñan alors projet boobu noonu li ko tax a jóg mooy construire à peu près 9,5 kilomètres de daloo ay canal yu mag yoo xam ne daanaka 3 mètres la sur 2 mètres xam loolu daanaka dafa xaw a mag oto sax mën a jaar si biir ensuite jëm a xool ñu renforcer bassin wu Kër Ñang bi également aussi construire beneen bassin parce que ñaari bassin yi ñu amoon ñu nekk si daa Daaru Rahman ak Pofdy bassin dañoo commencé woon ko am yenn limite moo tax ñu jàll benn côté dam fi ñuy wax kër kàbb vraiment benn euh, suuf bu ñu jox lu mat 60 hectares ñu commencé wax benn bassin bu 8 hectares donc liggéeyu yëpp daanaka mu ngi mi ngi yemb dafa fekk ne si biir euh, Touba comme dëkk bi dafa yaatu liggéey bi dafa commencé daanaka au mois de mars hmm. ñi ngi dox jëm daanaka fiyet euh, nawet bi fiyet màggal gi lépp du pare mais li am solo mooy yenn yi pare on yi mu parewul on a déjà déployé des mesures conservatoires maanaam maanaam ay pompes yu am doole yoo xam ne dañu permettre ñu génn ndox mi noonu la ñu fas yéene yéene gunge la ville religieuse de Touba durant nawet bi moo tax pas plus tard tey rek am na nga ndamal moto pompe bu 2000 mètres cubes heure bu ñuy yóbbu Touba boo xam ne day permettre ba sa yooyu xaroon daaw nga xam ne ndox mi su bëree. faw kër ñang pompe mm. te su su yàggee foofu aussi day day xar wala muy déborder donc bassin yooyu xaroon daaw. am na tey benn moto pompe fa directeur général yónnee bu 2000 mètres cube heure plus 3 kilomètres d'anaconda ñu jëm ko pomper di ko lëkkale ak bassin Kër Kaab nga xam ne pratiquement 60 hectares la. Mhm. loolu daal en tout cas mooy disposition yi nga xam ne actuellement euh, ONAS jën na ko pour gunge Touba si nawet bi. di ñaan yàlla aussi ñu ñu passé ko ci jàmm mais li am solo mooy ñun ñi nga fa te dañ gunge dëkk ba ba ba màggal gi jeex incha allah. Cheikh Mbow ci wàllu